lii tey mooy wàcce kaamil dañu wàcce ñetti kaamil bii dañ ko jagleel président Macky Sall li tax ñu jagleel ko président Macky Sall mooy yéene ak yaakaar ak jëf ji mu jëf ci réew mi moo ñu permettre tey ñu ne nañu dajale suñuy imam képp koo xam ne nitu diine nga tey ñu wàcce kaamil pour président Macky Sall mooy benn kaamil bi ñu wàcc benn kaamil boobu ñu wàcc pour président Macky Sall mooy ñaanal ko ci réew mi yaakaar ji sénégalais yi am ci réew mi mission bi mu am feebar bi ne ci réew mi yàlla dimbali ñu ba loolu yàlla jële ko fi beneen kaamil bi mooy ñaanal commune Bambilor pour yàlla dimbali ñu ba li nga xam ne moonu nan a tàggale mu boole ñu xol yi dëppoo pour chantier yi nga xam ne moom la ñu am pour askan wi ndax ëllëg suñu njaboot dañ ñuy laaj lu ñu leen defal wala luñ fi def ñu ñaan yàlla yàlla may ñu kattan ak man-man ba bu boobaa ñu mën leen defal ñu def ci loo xam vraiment kenn ku ci ne bu ñëwee du rëccu lu ñu doon jox euh, collectivité territoriale di nag wax di lancer un appel doomu commune Bambilor dafa jot ñu daje waxtaan bokk ndey pour li nga xam ne mooy chantier yi ne si suñu kanam ñu ci pour que ëllëg ñi nga xam ne dox si suñu gannaaw topp si ñun bu ñu fekk fi yoon wu ñu baliser mu yoon wu rafet di leen jox rendez-vous d'ici peu de jours inaugurer un joyau mais avant l'inauguration de ce joyau qui est le marché de Bambelor, le marché bi Bambelor Bambelor Bambilor visite de chantier les entreprises vont redémarrer les travaux pour la finition du foyer des jeunes de Gorom 1 foyer des jeunes de Wayembam foyer des jeunes de euh, Mbey et les deux foyers des jeunes de Déni Biram Nord et Déni Biram Sud et les poses de première pierre des deux terrains de foot basket de Déni Biramdao Nord et de Deni Biramdao Sud, le, la pose de la première pierre du foyer des jeunes et la réfection du foyer des jeunes de Bambilor et des foyers des jeunes de Meute. lolu maa ngi ciy oo nit ñëpp waxtaan ak wa dëkk yi ci li nga xamne def nañ ko ci dëkk yi askan yu ko bëggula gis bu boba bu ñu taalee seen télé wala ñu déglu seen radio dinañ ko gis